زمارج لهيا بدار بسارة مسقط رأس سيقي في اقتداء سيختجان mbokk jullit yi mbokk taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu xalif de la fayda cheikh Mahi Ibrahima Niass Serigne Mohamed Dione di soldaaru Baye Niass moo am mbégte di leen yëgal ak di leen fàttali gàmmu annuel bi muy amal at bu ne pour comprendre la dimension spirituelle de Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñu jàpp ko samedi 15 juillet 2023 ca Cambérène 1 ci wetu stade municipal bés bi ñu si woo Cheikh Abdoulahi Sow Baye Niass Gaye Zakir Cheikh Mohamed Ba Cheikh Seydi Sarr Cheikh Hamza Fall Cheikh Mohamed Mbaye ñu ni thème des actes de dévotion rapprochant le croyant à son maître conférencier de di El Mohamed, Mohamed El Sakho parrain bi di El Hadji Baye Ndiassé Cissé Marine bi di Soxna Adja Bintou Niang mbokk yi du Monde, ngi samedi 15 juillet 2023 ca Cambérène 1 ci au stade municipal Mohamed Serigne de Dione qui ci au teewaayu du Diop. سيحتجان ثم تاقد نفس الإمام لهلم يا لا همة لو علياء